loolu ñun bu ñu demee ba tey senegaal ay saay-saay ay nit yi ñuul bon lool te xamul ni dañoo yées ah léegi ngay fekk ñu utal yàlla sant gis ngeen ko de ñu utal yàlla sant yàlla nu sant wax leen ñu utal yàlla sant. yàlla nit la ñu tàccu nangam naaw xoola ma ñii ñuy tàggat nar lii na jënd jahannam ci ay xale yu góor ay xale yu jigéen ñuy tàccu di kontaan ci wax bu leen nar a yóbbu safara mbokk yi yàlla kenn du ko utal tur lii nag lu bëri ci senegaal yàqu na ci jëf ju mel ni mbokk yi Iblis liggéey na ci ñu bëri ci ay kër ci ñu naan diine la ñuy woote woo di woote woo ak yàlla yàllalu lu la ilaha illallah xam ngeen ñan ñoo njëkk woote woo yàlla yàlla ñaar ñu ko njëkk a woote ay buur lañ te ku ci nekk ci buur yi alal ju mu tiim ak tiim mbooloo moo tax muy yàlla yàlla lu Moussa dox na soxla si sonn na sedd bi metti na liw na te daa ëmb soxla na lu mu jaaroo Moussa xool xool ah yeneen yi day ay ku loolu daloon ci ñun nga ne ci àll bukki yi ngaax till yi ngaax soxna si mënatul dox toogal foofu dañu rek doxo man maa ngi dem de euh, xam ni responsabilité lañ ko dox mu dem góos gisul dara di wër léeg-léeg mu soxna si um taxaw rek amaan na léegi yàlla indi mbir allahu akbar id qaala Moussa li ahlihi lu mu wax soxnaam ah soxnaam nekk jigéen ju dégg ndigam ne ko inni anastu naara xeñtu naa safara maanaam séntu naa fu sori am na lu muy seen muy mel la fële noonu loolu day safara la muy nuru sa aatikum danaa la indil danaa leen indil min haa ci safara soosu bi xabar parce que Moussa dafa amul woon lu leer nañu ci li safara ndax guddi la سين ملخ كم خمود لا لا كون فاجول دوغوني سفارا واي دا كون دال سيننا سفارا دينا لا اندي الخبار سوما دامي با اغ موي سفارا ما اندي لو جارو سودول سفارا ما وخ لا لوما غيس او اتيكم ولا ما اندي لبي شهاب تي اب جم اي بشعله من النار جم كو خم جم تي هم باي دكار خم لين جم موي bi mooy ban ah bant biy tàkk lii xonq ci tàkk-tàkk ba commencé def te jeexagul loolu mooy jum ne ko dinaa la ci indil su ma ko indee la allakum ndax yéen tastaluun ngeen jaaru ndax jaar moom moo lay mën a arrangé fii nga toll borom bi ne yonent bi falamma jaaha bi Muusaa demee ba àgg ca bërëb ba jàppoon ni safara moo fi ne ndeka garab la fa fekk garab ga moo am leer gu ci yàlla defal boppam ah Muusaa ba mu dikkee xool ndeke du safara leer wa mu doon gis leeru safara la koy jox waaye lu ëpp safara moo fa nekk ba Muusa accee borom bi ne nuudiya woowees na Muusa woowees na Muusa nuudiya nee na woowees na Muusa an ne ko eey guuri ka barkeel na man fi naar ci safara wi allahu akbar ay sama borom yàlla day barkeelal na ki nekk ci bërëbu safara sii muy Muusa Moussa ko yàlla defal barke la ndax ñëw na ci bërëb boo xam ni yàllaa ko fa woolu ñëw na ci bërëb bi te Moussa moo taxaw foofu kon nuudiya am buurika man fi naar allahu akbar lii nag lu bari ci Sénégal yàqu na ci jëf ju mel ni mbokk yi Iblis liggéey na ci ñu bëri ci ay kër ci ñu naan diine la ñuy woote di wootewoo ak yàlla yàllalu lu laa ilaha illallah xam ngeen ñan ñoo njëkk a yàlla yàlla lu ñaar ñu ko njëkk a woote ay buur lañ te ku ci nekk ci buur yi alal ju mu tiim ak tiim mbooloo moo tax muy yàlla yàlla kon mën nga ni loolu sax xaw naa am sabab namrud ibnu kanaan malik babil namrud buuru babil lépp la amoon babil or bi daa bari jamaa bi bari namrud lu mu bëgg def def ko ñépp topp ko ba ko yàlla bëggee di yonent yàlla kii ibrahim la yàlla yebal moom la borom bi wax alam tara ila alladi xaajja ibrahimu fi rabbi lu tax an aataahu llaahul nguur gi ko yàlla jox moo tax mu jàpp ni moom yàlla la parce moom mooy daanaka mu numéro un ci dëkk bi lu mu bëgg la ñuy def kum bëgg rey rey la ku bëgg bàyyi lay bàyyi moo tax mu ne kon moom moom mooy yàlla ndax gisul koo xam ni mën naa nekk yàlla ku dul moom kon moom looloo ko ci yóbbu bi mu déggee ne am na xale buy weddi yàlla ji mu nekk mu woolu xale bi xale bi ñëw taxaw bi mu taxawee mu ne ko dégg naa dangay ngay weddi ni man yàlla la ma weddi allahu akbar eh, nit a yàgg bew nit moo yàgg bew ibrahim ne ko mënuloo lekk nekk yàlla mënoo ko waa ji ne ko lu tax mënuma ko ibrahim ne ko man sama yàlla mooy rey mooy dunda mais eh bien loolu moom mun ko xam naa ki gën a ñàkk sens ci nit ñi la woo ndeysaan léeg-léeg nga koo xam ndeysaan dafay ñàkk sens xam naa ni ku xëy xas waajuram lay doon rek même loolu ne ko man damay dundal damay dekkal Ibrahima ne ko loolu mënoo ko eh Pape kaay te eh, yéen ñi tudd waxuma leen de <laughs> ñëwal mu ñëw Moodu kaay mu ñëw mu ne ngaay rey leen Pape ñu ne til mun a ah, rey naa kii dundal naa mu commencé yëg boppam Ibrahim ne ko sama borom day mooy jëlee jant bi ca sowu ca maghrib indi ko ca sowu fenk la koy jëlee indi ko sowu defal ma gis waa ji xool xool gaay bon vraiment ah, nu muy def ah, comme mën naa rey rey na ki nekkal ne kii Ibrahima ne ko sama borom mooy borom jant bi da koy jëlee fenk indi ko sowwu léegi yow jëlee ko sowu yóbbu ko penku ñëpp taxaw waa ji xamul lu mex borom bi ne fa buhita alladi kafar lu tax mu ne alladhi kafar ay liddiaihi annahu allah limu wote woni yàlla la motax mu wedd ñaarel bi firawn firawn dafa wote wo yàlla nafsu shay li dal namrud mo dal firawn firawn lu mu wax yaa ayyuhal mala ma alimtu lakum min ilahi xayr xool naa xool mais gisuma vraiment ku gën a yell ci doon yàlla man la man la loolu ñun bu ñu demee ba tey Sénégal ay saay-saay ay nit ñuul kuk bon lool te xamul ni dañoo yées ah, senegal léegi ngay fekk ñu utal yàlla sant gis ngeen ko de ñu utal yàlla sant yàlla lu mu sant wax leen ñu dul yàlla sant yàlla nit la ñu tàccu nangam naaw xoola ma ñii ñuy tàggat nar leen a jënd jahannam ci ay xale yu góor ay xale yu jigéen ñuy tàccu di ci wax bu leen nar a yóbbu safara mbokk yi yàlla kenn du ko utal tuuf ku utal yàlla tur yéefar nga hmm. ku ko utal sant yéefar nga ndax lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan kii am tur day nekk mbindeef kii am sant day nekk mbindeef xanaa xamoon ni sant du dara lu ñu créé la nag teg fi boo ko weddee demal ci yeneen dëkku Afrique yi amul sant da gis benn famille kii sant nii kii sant nii kii sant nii dañ nga koy gis am naa ay gabonais yu jóge Gabon ñëw am benn séjour seet ma seen ñetti doom feebaroon feebar yu metti ñu tegtal leen nañ ñëw seet mu ñu ngi jóge Gabon ñëw bi ma waxee kii turam li mu ci teg mu santam mu àgge man ko xalaat jureen mu ne ñoom ñoo bokk ndey baay man ko eh, pourquoi ñi ma ne non ñun du ñuy am ay sant quoi ñun dañu xool nuñ la dàkkantalee rek ñu nit ku créé sant Sénégal kan moo créé Sall ah ku créé Ndiaye Diop Mbaye ku ko créé ñun ñoo ko créé rek moom mais ñun ñun ñoo ko créé moo tax sant lu ne ngay dégg xam ngeen ni daa daaju bay sant la non sant daaju bay daaju bay mooy fi ñuy daaj bay nit daf da koo neex mu ne man daaju bay laa sant kii loo sant man bëlëx lëx Baay Ibrahim bëlëx la bëlëx da nga da nga alhamdulillah bëlëx lëx bëlëx lëx moom sant non sant laax xamu leen yooyu sant la yi may non sant niki, sant la waaw su ma la doon limal sant yi 2500 sant li ñu ko taxawoon nag mooy jamono bi ñuy jàng nga xam ne dañ dañ lay bindloo ay saar aaya boo bind bind benn sant da ngay jël lettre alphabet yi bam mu jeex benn lettre bo ci jël mën nga cee jël 53 sant Lo foogul ni sant la boo demee feneen sant la fay doo ni sant la beneen yoon am na sant yoo xam ne ñeme woo leen tudd boo ko tuddee ñu mais am na ñoo xamante sant rabu, rabu. te am na fooy dem raagu mooy xale bu cabine ñu koy raxas mais sant raagu kon noonu la bare gis ni ko nga bëgg a jël yàlla utal ko sant mooy muntaha bew dëgg dëgg dëgg dëgg loolu mooy beew yàlla nañ ci yàlla musal lu tax mooy formé wuñ leen ci wéetal borom bi taala wa tabarak wallahi mbokk Sénégal li fi nekk yéem na mbokk yi tawhid wéetal yàlla mooy leeral xol sa xol day féex mooy féexal xol mooy dindi ay sikki sàkka wéetal yàlla mooy dindi xel yu ñaaw dangay gis koo xam day am arrière pensée xel yu ñaaw booy wéetal yàlla am tawhid xanaa xamoo booy wéetal yàlla sa xol day dal day dal kiy wéetal yàlla kenn mënu koo tiital ndax xam na ni yàllaa yore dund yàlla moomu moy rabbun nas kon nit ñi mënu ñoo am benen borom bu dul yàlla yàlla momu moy malikin nas moy bur nit ñi ñoo am benen bur bu toll ak yàlla ilahin nas yàlla momu moy yàlla yi nit ñi tawhid boko amé amee dana la musal min sharrin nafasat fil uqad bis bo amé tawhid waxu aji wax du la tiital déedéet kenn mënatu laa menacer cay dama koy jabar dama lay dama lay nangam borom tawit boo ko waxee da lay xool reetaan day xam yow da ngaa tardé yow yow yeewoo ko moo tax bi góor bi ah soo ma moytu si taxaw mu ne sëmm di ko xool nga da doon napp booy bi booy ko at boo ma lem suuf si booy bi na taxaw mu ne xëmm di xool yow nit nga nga lem suuf si léegi fooy taxaw da ngay rek nii <laughs> mbokk yi ki am tawhid tawhid mooy dàq seytaane boo amee ay sayaatin fekk amoo wéetal yàlla sa sayaatin du dem boo amee ay rab ay jinne na nga am tawhid wallahi boo amee tawhid seytaane attanul ànd ak borom xol bu am wéetal yàlla attanu ko mbokk yi seytaane ñemewul ku ragal la donte saay-saay la xana xamoo seytaane neng fu ñuy tuddee borom bi tudd ga di dëggu xoola nodd nodd bu ñuy nodd yonent bi seytaane day daw di ngelaw wallahu walahu durrat kon fa kay fa bu ñuy jàng alquran léeg-léeg nit ne man damay jàng alquran damay kii te dama shayatin jàng goo alquran alquran boo ko jàngee normal dootoo tiit dootoo ragal mbokk yi tawhid boo ko amee boo tëddee seytaan la jege ndax da nga jàng ayatal kursi ku jàng ayatal kursi ah Iblis waxoon na ko Abu Hurayra nee na kuy waaj a tëdd ci yéen bu jàngee ayatal kursi incha allah yàlla dalay booleeg malaaka yu la sàmm yooyu malaaka di la sàmm nag dañ lay sàmm ba ba fet seytaane du la mënal dara mbokk yi ki am tawhid day mucc day na ci jàmm day na ci salaam di nga mucc ci njabarkat yi féticheurs yi caaxaankat yi ndax doo leen gëm doo leen te yàllaay dimbale ki am tawhid wa kaana xaqan alayna nasrul muminin inna allaha yudaafi an alladina amanu mbokk yi tawhid mooy tax nga dund xayaatan tayiba nga dund dund ku dal mbokk yi ki amul tawhid nag moo ñemee wax ni yàlla nangam la sant seytaane pire ki amul tawhid moo ñemee wax ni yàlla nit la mbokk yi yàlla nga bëgg a jël yàlla def ko nit sa baay sañu ko woon sa yaay sañu ko kon ku ko def yéefar nga war nañoo tuub delluwaat ci yàlla subhanahu wa taala dafa mel ni adaan jot na de ah, waaw waaw fan yi waxtu bi moo xaw gàtt quoi incha allah rabbi kii nodd nañ ko li ci def ñu tënk ko rek ba